suñu jaar-jaar si lamb tay luñu lamb jox rek dañ ko mérité ndax lamb dañ si sonu dañu déparé si amateur wacc ci mbeur di accompagner ay mbeur yek ba dem ba nek président école de lutte dem ba nek agent dem ba lamb di encadrer ñëpp nga xamanteni ni tey ku ma xam-xam ni Ibamar biñ ma tuddé lamb ji tay tribune yi fa nek yep tok na fa soo duggee tribune bi ñuy jàkkaarloo si la seetaane Zos Khadim Ndiaye 2 tey beneen tribune bi soo duggee bi féete gauche si la seetaane Ousa Sow numéro deux ak Gaynde jour combat Baye Mañon ak Mbaye Diouf seetaan naa fa hôtel Dior mu bëreeg Pape Konaté seetaan naa fa Garga Mbossé maanaam daal tribune yëpp toog naa fa amul benn tribune moo bàyyi cumbukaay yi aussi yaakaar naa ni fu nek taxaw na fa te bi temit fay taxaw tamit c'était pas évident parce que nit ñi bobu gëmuñu woon ne homme politique war di and ak mbeur mais bobu dama non joxe l'exemple rek pour woon ni lamb demon na ba benn jamono ba xamanteni koko wax rek mune la duma dem ndax dafa bëri violence ñun lañ ci daan dem ak jam genn fa ak jam te tay ji peut-être que ñun tax nañ amna ay nit yu bëri bëri bëri yu ñew découvrir lamb bon lamb crise bi ci am ça se comprend parce que tay yaakaar naa ni euh, CNG moo ngi def liggéeyam mais dafa am la nga xamante ni dama ko waxoon ak euh, waa journal sunu lam CNG dañoo war a dépasser nekk ay bénévole parce que doomu aadama bien vrai que nit mën naa liggéey si nen ndax ñun lamb dañ si liggéey si nen loolu du liggéey sax jàppale la mais xam nga CNG entité la tey dañ ko war jox budget ñi fa nekk di liggéey ñu leen di rémunérer mbër yi aussi.

xam nga tey sama xel dem na si suñu papa euh, booy Bambara tey dañoo mujjee def ay émission pour nit ñi dimbalee ko lu mu dundee ba si Balla gay 1 euh, Jules Balde junior ñooñu ñëpp xam nga see décourageant nga dégg tey par exemple làmb ñu ne àgg na benn niveau ba pare niveau bi mu àgg ñi si nekk di si liggéey di nekk si ay tolof tolof soo xoolee promoteur yu bari bari bari bari da leen di déggal à chaque fois ay problème ndax làmb moo dem ba mu metti léegi nag euh, jàppale bi du tabax euh, benn stade jàppale bi du leneen lu dul toog ak waa CNG gën ko organiser waat di leen jox budget état di dugal loxoom si làmb parce que maa ngi dégg Tyson naan on a pas besoin de l' état li muy wax loolu du lu taxaw quoi on a besoin de létat parce que tey état mu mën woote fu mel ne damay joxe exemple ni Sonatel wala euh, Lonase wala feneen ak feneen seen budget sponsoring bi ñu am neen jàppale leen làmb société yu bëri su ko ku nekk yëkkatee dara def ñu xam promoteurs yi par ordre ku si nekk li nga si mérité ñu la koy subventionné yaakaar naa ne làmb dina mën a dem kanam. Euh, tey ku ne xam ne Kéba mu ngi mu ngi yëngu ci politique ah, daan na ci yëngu sax euh, mais Kéba tey créer mouvement ànd ci ak ay moromi jeune am euh, mouvement bi jubluwaay bi. waaw xam nga lu yàgg rek dëgg la te man comme li may faral di wax mouvement bi ba ma koy sos en 2009 social moo taxoon. lolou mu dafa bok si ñun bok ci man lolou nak moo ñu dem ba duggal ci politique ñu bari bari bari bari bari bari deggatuñ ma sax ma eh, wax et je pense que ni dafa jotagul pour ñu wax si mais li ma si intéressé dal moy xamna ni nit ñi di ñu gis ak ñu ñak ñu gis suñu waref ak suñu li ñu war ci biir population bi ñong koy def et lolou yaakar na ni def ko wuñu si ay caméra ak lenen pour woné ko ndax liñ koy def dañ koy def ndax suñu conviction personnelle la. du ma ko wax dama koy jëfal mu gis yaakaar naa ni làmb ju ne tëgg na ko fii moom itam maa ngi koy encouragé parce que gis naa ni nit ko am fulla la et des fois nit ñi mën nañoo réer ak moom ci ay kaddu mais képp koo dégg ñu ne daa naqari deret xamal ni daa am fulla te dafa nekk si njub maa ngi koy encouragé di ñaan yàlla làmbam ji nekk réussite totale